salaamaaleykum salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp moom di leen jox seen wàccuwaay <coughs> euh, Ibrahima Mbaye ah waay waaw c'est ça man moom dama nekk nit ku fonk waxtu. damay eh, nit so ko joxe rendez-vous ne ko na nga daje da ngay fexé ba waxtu wa nga ko joxe rendez-vous mu fekk la fi nga téla préparer préparé ba bu waxtu bi joté kenn baña togn tooñ sa morom nga bañ ko tardel mu bañ la tardel bokku na ci signe yi nga xamné war nañ ko soppi ci réew mi joxonté cër joxonté rendez-vous bo né nit nañ daje bisub sangam bërëb sangam heure sangam nga fexé ba waxtu wo ne la fa fekk teel la jóg bañ a tardé bañ a daw bañ a yéex a jóg am ponctualité bokk na ci li tax ñu mën a dem mooy ponctualité respecté kàddu respecté waxtu boo ne heure sàngam heure sàngam ne la fekk taxaw loolu képp kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp da ngay fexe ba jox sa bopp cër respecté sa kàddu sa nawle bu ngeen joxante waxtu wala ngeen waxante loolu nga fexe ba sàmm ko su gàllankoor amee nag ci diggante bi nga woo ko ko gàllankoor am na wala lii ak lii te muy dëgg nag waaye teg ci ay sos ak ci tappale moo tax bi ma joxee rendez-vous h ma daal di tàmbali loola day bokk ci li tax confiance kóolute gi war a dox suñu diggante am képp kuy woote wala kuy wax jëmale ci askan wi ah wala nga am loo bëgg dimbalee askan wi ci wax lay tàmbalee da nga wax bañu gëm la lay tax nak askan yu man la gëm ba nga mëna and ak ñom tabax rew mi da cey bok ci na ngay jikko say comportement say wax say jëf sa la nga gëm lepp ak bok na ci waxtu sangam heure sangam nañu daje heure booba yow waroon ñew di layam layam lolu mo war nek sa yene fexé ba bu waxtu wajote nga tew taxaw ñi wara ñew ñew ñu joxante cër tambali waxtaan wi loolu mooy li nga xam ne moom moo war képp kenn ci ñun waaw du mën a nag saa ñu ko defee rek dañu koy amee nañ bëgg léegi léeg nga dogal ba war a kii am rëq-rëq wala lu ci dox loo xam ne wala nga am tolof-tolof wala am lu xew loo xam ne day tax la bëggoon du sotti waaye loola du règle bi loolu du loo xam ne moom la ñu war a jiital loolu bu amee ren du am déwén bi déwén lay amaat wala sax mën naa bañ a amat maanaam loolu du loo xam ne bés bu nekk loolay am kon li jaadu mooy respecté suñuy kàddu suñuy waxtu heure yi rendez-vous yi respecté ko quatre-vingt-dix-neuf pour cent pour cent bi mooy léeg-léeg mu mooy loolu nag nit la waaye mënuñoo quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi di mooy benn rek di baax loolu moom musiba la kooku man ñun ñëpp dañ ci war a jóg taxaw dégg nga maam di joxante cër ci respe di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ah di wax comme nañu ko daan defee rek saa su ne ku dugg rek na nga fexe ba joxali mu jàll ci ñeneen ñi kenn ku nekk mën a dugg eh, ñu àndandoo comme ni ñu koy defee saa su ne seq waxtaan wi ci ci ëtt bi ngir dikk ci li nga xam ne mooy xew-xew bi fi xew démb te jóge ci ki nga xam ne mooy ki Sénégal gépp yaakaar te mooy président Ousmane Sonko di yu ndaw ñi yaakaaru mag ñi yaakaaru nitu taax yi yaakaaru nitu kaw gi. di yaakaaru waa diaspora bi di yaakaaru Sénégal gépp ak Afrique Afrique Afrique gi may wax du Afrique gi France te Afrique gi may wax mooy Afrique gi bëgg moom boppam Afrique gi xëccoo di xeex Afrique gu Guinée Afrique gu Mali Afrique gu centre Afrique Afrique gu Burkina Faso Afrique gu dégg nga maam Afrique googu nga xam ne ak Côte d'Ivoire ñu ngi commencé yeewu ñoom ñëpp di fipp di kaas. ngir mën a moom seen bopp comme ni France di po fi mu toll nii ak Union européenne ngir mën a moom seen bopp ci Russie ak américain yi noonu la africain yi di po ngir moom seen bopp ci France loolu nag euh, dimension bu rëy rëy la bu kawe boo xam ne euh, am na lu ci feeñ démb ci waxtaan wi nga xam ne président Ousmane Sonko seqoon na ko ak way tay way taskatu xabaar yi nekkoon ci réew mi démb euh, te ñu bari ci ñun wala bok ñëpp sax mën naa suma juumul seetaan nañu ko bu amee ñoon xam naa seetaanuñu ko warul te bari waaye ku ko seetaanu tamit bu lii noppee mën nga dem dugg ci xarale yi nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi nga fexe ba wala wal fajri sax nga seetaan déglu ko bu baax ci bi muy tàmbali ba bi muy jeex da ngay xam ne kii amul sax jot tof sa Sadiq Top mi nga xam ne moo doon présenté journaliste yi ci njëlbéen gi di présenté kenn ku ci nekk fu mu jógee yooyu ba mu noppee ba ñu jox kàddu gi président Ousmane Sonko la mu njëkk a wax mooy Sadiq ñàkk ñàkk nañu 15 minutes ci temps bi 15 minutes ci présentation moom Ousmane Sonko bu doon moom rek kenn du présenté kenn dañuy tàmbali waxtaan li mu xam bari na li mu war a wax bari na yéen a ji pour sénégalais yi xam bari na. temps bi gàtt na seer na liggéey bi mu war a liggéey bari na moo tax nee na nee na nee na sa dix toog yow jël nga ci suñu temps fukki waxtu fukki minute ak juróom di ak di di présenté ah, wax na ko ci wax ni reewlu waaye loolu message la loolu ci ñi ko dégg ñi nga xam ne ñoom bu président Ousmane Sonko di wax dañuy jël note dañuy bind ak teewlu ñoom dañuy teewlu bu baax duñu ba dara nooyi gaag loxo bu muy yëkkateeg bi muy teg ak gestu beeg lunette yi muy laal toogaay ba mu toog ak tànk yaag bakkan bi muy laal léeg-léeg loxo yi muy joxoñ ak gestuel baak wax jaak kàddu yaak du maanaam doo bàyyi dara Ousmane Sonko moom xarum tabaski la xarum tabaski doo bàyyi tànk yi da nga koy da nga koy tànk yi da koy seel dégg nga maam der ba nga tàlloo ko ba mu kii weer ko butit ya nga defar ak baax yi def ci laxas doo ba dara Ousmane Sonko moom xarum tabaski la kurum tabaski doo maanaam doo doo amul amul looy sànni ay waxam doo sànni dara wax ja da ngay yere yam sol nga xol yere yi nuñ ko ñawé dal yi sol montre bi fan la ko jëlee colin ji toogaay bi waxin wi gestuel bi lunette yi lépp rythme cardiaque beeg lépp ngay xool du ba dara lépp ngay contrôler kooka ku man ku man loolu moo mën a jariñu ci waxi Ousmane Sonko ku man loolu ku man ku man loolu moo mën a saaw moom xarum laadum la xarum laadum xam nga xarum laadum boo jëndee ñaari million xam nga doo sànni tànk yi da nga koy da nga koy da nga koy ba bu baax bàq yaag bu tuuti da nga def ci laxas yu baax def ci supp bu baax a baax a baax béy jëni sax doo ko sànni xarum laadum béy jëni doo sànni dara ndax xarum xarum laadum Ousmane Sonko xarum laadum la moo tax ku ko am nag da nga koy toppatoo nag di ko jox muy lekk-lekk bu baax ko néeg bu am climatiseur xarum laadum di leen climatiser di leen di leen jox nag di leen yóbbu ci kiné bi ñu di leen dàmp ak yooyu yëpp xarum xarum laadum xarum laadum dafa cher waaw Kumba waaye lii sumbi nga wax nga dëgg xarum laa dum la moo tax moom ma koy déglu man dama naan damay damay fay làmp yëpp tekki kenn du yëngu weñ yi du naaw dara tekk du ma ba dara damay seeñu yax bi dama koy seeñu koy seeñu ba yax bi jeex tàq ba yaakaar ne sama soxna si dama sànni yax bi ba ne ko déet yaxu Ousmane Sonko déet ko sànni xaaral ma toj ko yokk ci bi yokk boobu dama koy génn ko yàq yokk bi du ba dara loolu mooy tax nga mën koo jëriñoo mm. nit la koo xam ne euh, euh, yàlla mi ko bind rek moo ko xam yàlla mi ko bind moom Ousmane Sonko moom donc moom ak benn benn nit yi yàlla baaxee ñu xam Ousmane Sonko ndax du ñëpp ko xam ñenn ñenn ñi yàlla baaxee ubbi seen bët mu mbalaan mi mi yiir seen bët yi yàlla wàcce mbalaan moom muy voile boobu yàlla wàcce ko ba nga mën a xàmmee ñooñu nag du ñëpp yàlla mayul ñëpp nag ñu mën a ràññeetle waaye moo tax ku yàlla may nga mën a ràññeetle da ngaa war a tamit am yéene ak yéwén ak générosité la yàlla won ba nga xam ko ci Ousmane Sonko nga fexe ba àggale ko ñi ko yàlla xañ nga fexe yow ci say pexe ak say ndax yàlla du wax yàlla moom dalay da day jëf te comme ñun ñooy wax ñun yàlla ku mu baaxee ba nga ba na la Ousmane ko ba nga xam ko da ngaa war a jël soo làmmiñ ñëw fexe ba ñi ko ñi ko umpale nga fexe ba ñu xam ko ñoom ci ci wax ci làmmiñ ak tegtal faram fàcce kon euh, loola na ci ñëpp bàyyi xel ku dugg rek na partagé ku ñu ku fi ñëw rek ku fi dugg rek dañ laa invité dañ laa partagé ba nga jot ci moo la fi dugal nit nag la la la fa nga fa nga buntu ba nga jaar ba dugg si bunt boobu da ngaa war fexe ba ubbi ko ba keneen jaar dugg si bu fekkente ne li ñuy wax am na njëriñ laa wax nag waxuma rek ñi ñu ñëw ñuy def cinéma déedéet lii ñuy wax dañu yaakaar ne farata la mu nekk loo xam ne lu rëy la ci man ci di wax ak yéen ci li ma xam ci jàngatu discours Ousmane Sonko la ca nëbbu ak la ca nëbbuwul yëpp ñu faram fàcce ko bokk ko dama yaakaar ne loolu liggéey bu am solo la ndax président Ousmane Sonko gis nga temps bi dafa xat journaliste ña ngi koy pamte lañ koy seeñoo ko tëbaka dala ki kontaan Sénégal gépp kontaan la ñu dëxëñ la Ousmane Sonko dëxëñ ci ay waxam la mu bëgg a wax te waxu ko te dëxëñ ko ci ay wax mat na milliard fois li ngeen di kontaan di tëb di dal maanaam la mu wax yëpp bu doon junni la ma ne benn la leen ci jox li ngeen ci dégg yëpp benn la ci li mu bëggoon wax waaye temps bu gàtt moo tax léegi nag dafa laaj ñi dégg waxi Ousmane Sonko te xam la mu junj ak la mu bëggoon a wax te mënu koo wax ci temps bu gàtt ak mu jëm ak la muy woote la ca xel ma yëpp temps bu gàtt bi mënu lu ko may ña dégg loola xam loolu dañoo war a toppaat ginnaawam def lu ñu tuddee tuddee foraat foraatu xaw yi xam nañu foraatu foraatu wala boog boo boo boo ko tuddee ci ci ci wàllu mbay waaye foraatu rek foraatu Ousmane Sonko bu jàllee da ngay toppaat ci ginnaawam daal di koy toppaat nag fa mu jaaroon yëpp nga toppaat ko nag daal di koy benn benn nag daal di koy yokk daal di koy daal di koy nag faram fàcce nag faram fàcce loola tey moom laa bëgg a def ak yéen fii la ngeen dégg ca waxam ak la ngeen déggul ca waxam te mu wax ko te neexut a dégg loola laa leen di gindil fii mu leer seen bopp yi ndax ñëpp a war a xam dafa war a leer te nit ñi yemuñu xel yi tolloowuñu dégg-dégg yi yemuñu gisin yi yemuñu mu tax dafay laaj ñu benn benn laat ko la ca leer ñu bàyyi ñu ñu lu leer moom leer na la ca xaw a leer ñu fexe ba mu gën a leer la ñu junj ca wax gerte waxu ko da koo junj ñu fexe ba euh, wulli ko teg ko ci euh, kaw der bi ba mu leer nañ ñi ci bopp ñëpp ndax jamono bii ñu toll dafa nekk jamonoy xam jamonoy xam jamonoy xam ba noppi soog a gëm jamonoy xam la waxuñu jamonoy gëm waaye jamonoy xam kon euh, gis ngeen de waxtaan nag mu tëddee laal nañ ci li nga xam ne mooy palom bu bees gii di wàllu meeri Casamance la mu ca yéene ay projet mag fa mu jëm ak li mu tàmbalee def te Casamance muy décision yooyu nga xam ne jël nañ ko ci conseil municipal bi waaye tamit laan nañ ko ci xew-xewu Casamance muy rébellion boobu nga xam ne am na ñeent fukki at la mu ca xalaat wax na ko waaye laal nañ ko ci li nga xam ne mooy lii nga xam ne mooy complot bi di complot Adji Sarr loola gis ngeen la mu ca tontu dinaa ci dikkaat waaye tamit laaj nañ ko ci lii nga xam ne mooy xew-xew bi fi amoon ci Coupe d'Afrique beeg coono ci am ak sa mboxloo yaag politique bi ci Macky doon def ak la mu ca xalaat yëpp dégg ngeen la mu ca wax waaye laaj nañ ko tamit ci dundinu réew mi jafe-jafe yi àdduna bi ak it li nga xam ne moom la Sénégal yi dund ci jafe-jafe yoo xam ne ah gis ngeen ko ci dund bu cher dëkkuwaay yu cher nit ñi amuñu fu ñu dëkk amuñu luñu lek lekk faju mënuñoo dara waye jamono bobé la lepp di xew ci ñaan mom moy réew mi di Macky Sall mom ma ngay tabax ay estatu téméri téméri milliard téméri milliard ak juroom fukki milliard ak juroom ñaar di ko def ci estat boo xam football ak fo ma ngay jël ay lu mat dégg nga maam ñaar téméri milliard di def ci saxaar go xam ñan cey dugg amuñu amuñu passe jël lu mat dégg nga maam daanaka àgg na ci junni milliard junni milliard ak juróomi téeméer mu def ko ci ay saxaar goo xam ne ñi ëpp ci senegale yi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan mënuñoo faju mënuñoo dem mënuñoo dikk mu defal leen saxaar goo xam ne Paris pari biir pari train yi daw pari yëpp train bii daw dakaar moo leen gën a bees teeru Dakar boobu saxaar googu mu ñu leen dakaar jam ñaajo googu moo gën a moo gën a sophistiqué saxaar yi daw pari France gi ko jaay loolu France gi ko ko jaay moom France Paris saxaar gu mel noonu amul ci confort confort amul France amul Paris Paris laa wax de région Paris capitalu France saxaar yi daw ci biir dëkk ba saxaar goo gi daw jam Dakar jam ñaaje moo ko gën a cher moo ko gën a luxe moo ko gën a moo ko gën a yu bari yoo xam ne tubaab yi koy defal ñoom ñeme wuñu ko defal seen bopp tubaab bi ñeme wuñoo jaay seen bopp terrain boobu kon nga gis ne président Ousmane Sonko ñëw na ci fànn yooyu yëpp ñu war ci ñëw nag décortiquer ko waaye wax na tamit fi réew mi jëm ak 2024 wax na ci coalition yi Askan yi wax na ci lu bëree bëri ci feddali confiance bi nga xam ne moo tax digganteem ñi mu ko seqal ah ak élection yi xam ne moom la ñu dëgmal muy élection législative yi bañ ko jéem dugal ci ay poste premier ministre yi doon yooyu sama yéen ñëw ci bu ko bu leen neexee nañu fal Farba Ngom ministre premier ministre pour xamal leen na moom nekkul ci yooyu sénégalais yi ne kon li ñu war a njëkk a jàng ci Ousmane Sonko bu yooyu yëpp weesoo mooy ñun sénégalais yi li ñu war a njëkk a jàng ci waxtaanu Ousmane Sonko démb mooy nit day am fit aw fit foofu lay tàmbali yéen fit yox yoxi ragal dee ragal xeex ragal dëgg ñeme yàlla ragal sëriñ ragal ragal yàlla képp moo fi ne sama wax démb mooy sama wax tey nañu am fit gëm suñu bopp gëm yàlla gëm suñu bopp pour tabax suñu Sénégal buñ ci bañ xuloo buñ ci bañ xeex buñ ci bañ dee buñ ci bañ dëkk bi tàkk laa wax bu waree tàkk dëkk bi bu waree tàkk ci dëgg na tàkk ci dëgg dëkk bu tàkk ci dëgg moo gën dëkk buy bu dëkk dëkk bu ne nemm ci ay tappale gis nga dëkk buy dund ci tappale di dund ci njuuj njaaj di dëgg di dund ci ay fen ñëpp na nemm dëkk buy tàkk ngir dëgg taxaw moo gën dëkk bu ne nemm ci ay fen ak ak ak tooñ yàlla ak nax askan wi ak di lekk alalu askan wi alalu askan wi di ko sàggane di ko caax caaxe teg ay tappale di fen di kompolo naan viole ki jël ay jigéen di leen utiliser comme comme des comme des chars à canon di tas réew mi di féewale nit yi di jël opposition bi di duma di tëj di def complot njuuj njaaj guddeeg bëccëg ger sëriñ si ger ñenn ñi ger dugg fii jël Youssou Ndour jox xaalis jël Wally Seck jox xaalis nañu nax xale yi làmb jeeg yëpp tabaxoo ko fi hôpital bu nit ñi mën a fajoo tabaxoo fi usine boo xam ne dafay defar lu nit ña mën a jëfandikoo ngir mën caa amum xëy amul benn usine bu fi Macky def ba mu ba léegi fukki at boo xam ne ndaw ñi mën nañ faa xëy amut ci po ak tiaxan ak lu and ak seytaan ak iblis kep ki lay def suñu alal ci li def ñu def ko seeni i rew moma bu takkon tay ji ci xex ñu lu ngeen xex ñu dañu bëgg koppar bi ñu genn ci rew mi alal ji delu ci askan ñi ñi mëna amum xey am fu ñu dëkk comme ni ko ndaw yi wa yof yoyé ndaw yi wa ngor ak wakam libu yi nga xamne ñoom dañu xayutuñ Dakar libu yi ñoom ay ay ay doxandéem la ñu Dakar ñoom yi nga xamne seeni mam i maam ñoo sañcoon Dakar ñoom legi ñu ngi leen Dakar léebu boo dugg këru léebu boo dugg boo duggee ca néeg bi da nga fa fekk fukki gën a yu dankalikoo fukki gën a ñooy bokk benn matelas bu ndaw mel na ay sardine lébu da daan nappi sardine ci géej ga jëw jaay ko waaye léegi lébu yi ñooy sardine yi léegi boo leen fekk ñu tëdd seen léegi dañuy dankalikoo ndax amatuñu fu ñu fanaan ndax lan Macky Sall jël na suuf sépp téye ko moog Marème jabar ji ñu jël ko di ko séddoo di ko jaay di ko jox seen i ñoñ aéroport bi bi ñu ko yëkkatee ñu yaakaar ne woon dañ koy def benn grand parc parc bu mag a mag a mag a mag aménagé ko def ci ay loisir ak ay yu bari dagg ci tuuti jox lébu yeeg ñenn ñu ñu am fu ñu dëkk li ci des yëpp ñu aménagé ko mu am espace nekk poumon wu Dakar loolu la ñu moom mii loolu la waxoon Macky Sall waaye dañ ko def cartographie bi mu ngi ci biiram Macky Sall aéroport bi Macky Sall ci Ndakaaru bi ku fa am suuf Macky Sall ci boppam moo la ko jox wala Marième Faye Sall ñoom ñaar képp ñoo yor signature yi ñoo ko la ko jox ku fa am suuf Macky Sall moo la ko jox kenn mënu faa joxe suuf kenn ku dul mak Sall moo téye suuf si ci biiram ci biir palais bi moo jabar ji ñu dagg di jox ku leen neex loolu dama bëgg ngeen xam ko mu leer dégg ngeen de kon Macky Sall baaxul guddi baaxul bëccëg man Sonko dong dong dong dong moo xam Macky Sall du nit koo xam ne da nga koy wóolu du nit koo xam ne da ngay toog ak moom di wax du nit koo xam ne da ngay diisoo moom lenn nit la koo xam ne da ngay waajal sa bopp di entraîné wu bus bu nekk pour dal ci kawam ku dal ci kawam rek la xam xamul ku ko bëgg xamul ku jub xamul ku baax xamul kuy xool intérêt Sénégal xamul ku bëgg jàmm saa soo taxawee naan maa ngi defar li Macky Sall ngir réew mi Macky la nga yore xeej woo xam ne bu loo ko jamee nga xam ne sa yoon néegu ci nit ku bon ku soxor la nit ku iñaan ne yéenewul kenn dara lu baax ci mooy Macky Sall ko loolu Ousmane ne kii la xam moo tax moo tax wax na leen ko ba kub ba ñëwee ngeen lëpp lëpp yéen làppatoo yi lu ma leen waxoon ci kub bi lan la len waxon ci coupe bi yeen làppato tay yeen nga ngi senegal Sénégal a gagné dañoo fier soxor dangaa lii dangaa la ma len ay làppato ngeen làppato moy ngeen yeen da ngeen dal ab coupe ay estate ki ay coupe gi ay dem ci palais bek ndakal gi fess ken liggéeyu yeen bon yeen bon lan yeen lu ngi rek ab coupe ana coupe ana coupe d'Afrique bi ngeen don yuxu anam ana coupe bi da ngeen am lal bi ngeen tëdd ndax da ngeen cee amum xëy ana kumba da am ceeb bu ngeen di lekk loyer yi seen loyer yi weer yi kan koy fay ana kumba dama laaj loolu anamu loolu jeexul ana kumba laa leen laaj yéen ñu doon jëppi-jëppi anamu nekk leen ay nit yor seen xel yi di xalaat xool fi seen njëriñ nekk ngeen di fa def seen temps temps dafa cher topp Macky Sall muy lambar lambari liggéeyul guddi liggéeyul bëccëg tappale ci lay dox ak njuuj njaaj teg dil ci kaw dil mafia kàpp dégg nga maam cartelu trafic lépp luy trafic ci la Macky Sall yi dox ngeen topp ko muy perte seenu temps sàcc seen alalu réew di tappale ci ay coupe yoo xam ne amul bopp amul génn talluñu ay football ak ay coupe ak ay stade li ñu tal mooy li nekk ci réew mi muy alal di pétrole bi di gaz di zircon bi di or ba ci Sabodala di napp gi pêche bi di artisanat bi di tourisme bi di leneen ak leen mbay mi lépp lépp ñuy fexe ba def ci alal ji nit ñi mën caa am ay xëy ba mën a am lu ñu mën a dundee lii mooy priorité ay coupe d'Afrique gi on est champion champion encore en lapoto vous êtes en Lapotonie un pays boo xam ne on appelle ça Lapotonie vous êtes champion en quoi champion en quoi football parce que football moo lay dundal parce que football mooy tax ngeen am jabar am kër am doom am seen i dépense di dund football mooy tax seen diine baax football moy tax ngeen am wér ngeen am wér-gu-yaram football moy tax bu ngeen demee hôpital ngeen mën a faju li may wax mooy li Ousmane Sonko bëggoon a wax démb te mënu koo wax ndax amul temps football mooy tax yéen dégg nga maam ngeen mën a bëggante réew mi am jàmm football mooy tax ngeen um xëy football mooy tax école yi mën a jàngi grève bi jeex ay weer mënu leen a jàngi football bee football bee koy lijjanti football bi mooy tax bu nawet bu tawee baykat yi mana am jiwu bu baax am engrais bu baax ñu dimbali leen ba mana am lu ñu dundé ci seen ko football bi koy may football bi moy tak jabar football bi moy ngenté doomi football bi mo nek ci hôpital bi ku dem ñu faj la ta doo fay dara lolu football bi koy indi football bi moy tax nga mana tak jabar man ko tak football bi moy tax nga am kër ah waaw football bi football bi football bi moy tax goor jigéen ñi de nga mam man fay football bi la génn ci mbooloo ci football bi yéen ñi génnoon yéen du lapp tey yéen la ngeen génn ci mbooloom football coupe la ngeen génn Sénégal la ma fa gis keroog bi waa ànd saa sàmm jikko yi wootee génnu leen lu tax football moo leen gën a yitteel xeex góor jigéen waaw loolu la Ousmane Sonko bëgg a wax te mënu ko wax man maa koy wax xeexum góor jigéen moo leen gën a nekkal farata xe dégg nga man xeex xeex maanaam dem ca football ba wala ca làmb ja toppi Wally Seck ki Youssou Ndour ak Coupe d'Afrique yu ñàkk fayda yoo xam ne amul bopp amul genn aju ngooñ futbal làmb Youssou Ndour muy fooy Wali Sek, ñoo yoy yoy ngeen yittel ba man ca genn ba melna na ay yamb genn ci takku lol fasu leen a taxaw genn bu ñu nee ñi ngi jaay seen pétrole seen gaz kenn du genn dañuy sam jikko yi ngir askan yi baña tabbi ci nguur jigéen la da ngeen genn waaye du ngeen melne na ngeen genné won ca kubba ba bu ñëwee bu makki Sall pasar pasare suufu lebuy kenn du genn su ngeen amul ndox mu ngeen sangoo dara amul ci réew kenn du wax waaye bu Macky Sall ne kaa leen ñu foo yéen ñëpp ngeen ñëw foo foo moo leen gën a yitteel liggéey bëggu leen liggéey bëggu leen xam-xam bëggu leen jàng am rek ci am po rek ngeen ne am po rek po rek ba kañ ba kañ ba kañ sama wax yàgg naa leen a wax lépp lu ma leen wax jalu muus na booy wàq di daj dama fi du nekk di ko toppaat naan waxoon naa li yëg waxoon naa li awma lu may waxoon naa li waxoon naa li ma wax xam ngeen ko ñi may déglu saa su may wax tey noté borom xel yi laay waxal de waxuma làppato yi borom xel yi may déglu di topp samay wax ñoom xam nañ li ma waxoon démb ak li ma wax tey xam nañ la may wax ak la ma waxul loolu du ma ci dellu si du ma ci dellu kon football bi la ci Ousmane Sonko wax na ko Macky Sall nee na Ousmane opposition bi laay invité Habib ko mu ne ko man maa nga jëm Porokhane bu ma nekkoon Dakar du ma ñëw xam nga kooku di dëggay dëggu loolu laa gëm la ma leen wax man lan laa leen waxoon leen fekk ngeen di fetoo ko ay coupe yéen ay làppatu dëgg dëgg dëgg an waaw xaw ma lan c'est le Sénégal ki gañ suñu fierté réew mi kon ñun ñëpp war a ànd bokk ndey naa feeq googu ànd ngeen bokk ndey bokk bàyyi pour pour une semaine delluwaat ci seen làppatoo ak seen ndóol ga ak seen soxorante ga ak seen rayante rek ak sànni xeer rek toj lébu yi ñoom ñëpp a génnoon di ca coupe ba ana ñu tey ña nga taxaw na fu ñu dëkk la ñu bëgg ñii amuñu ndox ñii amuñu xëy ah, kay ba ngeen ma fi bàyyee ñoo àndoon di xeex pour réew mi jag ngeen ma am dundu gu sell dëkkuwaay paj am xëy njàng bu baax ñoo àndoon di ko xeex ba kub bi na may ñëw yéen ñëpp ngeen daw ca kub ba mel na du woon yéen ma ne waaw man ñii maa ñoo ma doon ànd di xeex ngir àq ak yelleef ab benn coupe dong moo fi dugg si ñu naan coupe d'Afrique la ñoom ñëpp ña nga ca coupe ba di tabaka daal ñii xanaa du ñëw ñi àndoon ak man di xeex sama gaay yi ñi andon ñu ay patriote la ñoo andon di xex patriote yépp dem ba ma fi dem ba ma fi ñoom ñëpp ña nga jëpp jëpp ci ab coupe man do nga ma dess fi gisuma kenn xol gauche gisuma kenn xol droite gisuma kenn man ñi lu leen dal man de deewuma ci coupe xexewuma coupe toppatoo bu nga gañe woon coupe du monde yëgatuwuma man to coupe du sama priorité football du sama priorité bañuma football de bañuma lamb bañuma dara waye dama am sama sama priorité dama ko xam nit day xam luy dama xam sama farata man dama am ay farata yu ma wara régler bala may tali football ak coupe ak ay lamb yéen du ngeen ay nit man fi ma taxaw dama koo xam li may xeex dama koo xam kenn du ma bippi jara du xew gàmm du xew ba yóbbu ma màggal du ñëw ba yóbbu ma coupe du du ñëw ba yóbbu ma seen événement lu ñëw fëkk leen lu ñëw fëkk leen nit da am taxaw taxawaay bu dëgër xam li ngay xeex lan la natt ko wëlbati ko ci wet gu ne boo ko nee ciix téye dara bañ laa fëkk yóbbu lan mooy coupe lan mooy coupe ana coupe ba anam dama leen di laaj nekk leen ay nit bàyyi lu ñëw fëkk leen ab lappato mooy def ngelaw lu ñëw fëkk lu ñëw fëkk Macky di leen pamti pamte di leen nax gis naa léegi mu créé concert xama lan nu nga tuddee jàkkaarloo googu mën na la jàkkaarloo nee ne ndaw ñi lay dragué léegi wala doxaan ndaw ñi léegi ab doxaan kat ko góor jigéen kay mu ne ko ba jigéen nga mën ngaa doxaan ndaw ñi dégg nga xam nu nga tuddee concert boo xam ne jokkoo ak Macky ma ne ko loo jokkoo fukki at nga fi def defaloo fi ndaw ñi dara fukki atu yàlla defaloo fi ndaw ñi dara ndaw ñi yi nga ne da nga ñoom looy wax ñoom lan ngay jokkoo ndaw ñi xanaa xanaa ngay tàggatoo jokkoo ndaw ñi pour tàggatoo dem sa yoon loolu moom d'accord nag tàggatoo dem sa yoon wax ak ndaw ndaw ñi dañoo génn ci yow ndaw ñi dañoo pare pour xeex ak yow na leer yow Macky Sall ndaw ñi dañoo pare pour xeex ak yow tout deret la ñu pare ci réew mi sa deret dina tuuru wala deretu ndaw ñu tuuru foofu lañ toll ak yow fi ñu toll amuñu lu ñuy layam layam ak yow ak lu ñu négocier si yokkuñu ak yow dara fukki at yalla nga fi tok defalo ndaw ñi dara lu yak yàq seenum jàng grève defalo ndaw ñi dara lu xagn xañ ay ay way defalo ndaw ñi dara lu mënu ñoo faju defalo ndaw ñi dara ñum xey dara ba dara do jeex Macky Sall fukki atu yalla plus de 25000 milliards ci budget nga yor ko fi fukki atu yalla ndaw ñi ñu ci am am nga ndaw ñi jirul layam layam wiir wi du soti nga wo opposition bi ne da ngay dajje ñoom ngir lan ñu accueillir joueurs yi champion yi la ñuy wax champion ci football man duñu sama ay champion j'ai rien contre les joueurs ils ont leur ngi football mais man loolu du sama champion man champion du ay joueurs yi football man champion mooy kii dafa réew mi champion moy ki fexé ba ngeen am liggéey champion moy ki fexé ba jang mi baax champion moy ki bëgg faju faju champion moy dégg nga maam dund gi wañé ko ba ngeen mëna dund champion moy ku ci mat tak jabar nga am lo mëna tak jabar yor ko am ci say doom fondé sa foyer koku moy ki fexé ba loolu am koku moy champion man koku moy sama champion ay football kat yoy duñu say ay sama champion sama yoon neeku ci football top ko champion moy ki fexé ba gaz bi nekk ci réew mi fenj fi pétrole bi feeñ ci réew mi te jox ko tubaab bi lépp ñu xañ ñu ko ñun Macky Sall def loolu champion mooy kii taxaw xeex na loolu bu ma faloo dama koy delloo si ba gaz bi ak pétrole bi géej gi ñu jox nit ñi ñu napp ko ba Sénégalais yi dem Mauritanie ki Guinée di nappi jën ndax seenu géej ñoom Sénégal moo ëppoon géej jën ci àdduna bi Macky Sall jox na ko tubaab bi ba tubaab bi jël seen i bato yi napp géej gépp ka leen def loolu moo leen di woone leen ka leen ñu ànd puukare wu ci ay champion yoo xam ne coupe d'Afrique boo xam ne affaire seytaane képp la uma googu jot man uma temps bu may yeewu leen nekk ay nit yeewu leen nekk ay nit su ma leen ne ay làppato ngeen ngeen mer waaye bés bu nekk jëfi làppato képp ngeen may jëfal saa yi ma xoolee seen jëf-jëfi làppato lu ñëw fëkk leen nit day taxaw dëgër am position assumer ay choix am comme ni ko président su Ousmane Sonko waxee awma lu may seq ak Macky Sall fetuwuma ba mu woo opposition bi ñoom ñëpp ngi dem fa ci aéroport ba gis nga leen ci ab pantre la leen dugal ñu jël seen i photo comme ni mu ko waxee jël photo tasaare ko pour lan pour mbarak nit ñi da ngeen faa gis benn kenn ku bokk yeewu askan wi ba jour di wàcc Macky Sall la fa nekk ak i ñooñam ñi mu àndal ñoom ñoo jege jour yi ba ñu def seen i caravane di dem ca pale ba gis leen benn opposition ba leen Macky wooye ñu ñëw ci aéroport bi mu dugal leen ci ab salle nuyu leen ñoom ñëpp ñu jël seen i photo ca la pare ca ñoom parqué leen foofa ba jour yi ñëwee mu génn ca saal ba dem accueillir jour bi ca Termago aéroport ba génn ak ñoom jiitlante ak ñoom ñu jëm ca palais ba ana opposition bi sànni leen pare na ci ñoom soxlaatu leen léegi loolu la bëggoon def la Ousmane Sonko toroxal ko Sonko nag du doomu làppato moom kenn du ko toroxal oui il faut être républicain c'est la nation qui gagne seen yëfu naafeq tappale yooyu man new ma ci heureusement ba moom nekku ci moom Ousmane Sonko man nag moom moom nekkuñu ci ay tappale moom seen naafeq googu ngeen nekk ah waaw waaw réew mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ah équipe nationale bi ñun ñëpp ko bokk il faut être patriote yow da ngaa soxor ndok sama yoon nekku ci seen tappale yooyu man néew ma ci man du ma naafeq de ba ngeen yàq ma da ngaa soxor rek da ngaa lii da ngaa sama yoon nekku ci fetuwuma fawuma supporté wuma taluma football man wax day leer loolu laa gëm heureusement ba Ousmane Sonko loolu la gëm voilà ku mu neex baax na ku mu neexul sa yoon newu ci nekk président de la république du force ci Ousmane Sonko bu ko nekkee baax na bu ko nekkul seen problème la du ko wàññi dara kenn du ko chantage oui boo deful lii duñ la fal boo kiwul ko yooyu ay caaxaan la yàlla mooy fal ak yéen ñi bu ngeen ko bëggee bu ngeen ko bëggul du falu bu ko bu Ousmane Sonko bu falul du ko yëg yéen yéen a ko yëg Ousmane Sonko ñàkk a nekk président du ko wàññi dara li mu bëgg a nekk président yëpp ngir yéen la yéen ñi lii may man mii li may wax su ma neexoon bañ ko wax de li may wax ni pour yéen la di man maa nga aju ca ak samay tànk su ma neexoon teg sama téléphone du ma wax ak kenn li may wax pour yéen la yéen ñi ñu yërëm nag ba di sonn si yéen di wax di gëstu di def lu ne ngir bëgg ngeen xam yeewu ngir seen dund ñoŋ Ousmane Sonko ñak aduna mak lepp ngir yeen bu ngeen ko mënta yeen yeen mu falu ci palais bi pour tabaxal leen seen dundu yeen xam seen problème la man kenn duma ma chantage te mom kenn duko chantage Sénégal da ngeen am jikkoy chantage waaw ah bo deful li talibé yi duñu votel ki ah bo deful li bo bo àndoo ci football bi ah équipe nationale bi kenn du la votel yoy ay tappale la voilà man fatuwuma ànduwuma ci équipe nationale supporté wu ma xoo xàmmewuma joueur yi xaw ma leen dañoo nekk ci ay coupe d'Afrique coupe du li ma tal mooy yéen waa àll bi ngeen am ndox li ma tal mooy àll bi ngeen am courant li ma tal mooy yéen waa àll bi ngeen am ay yoon yu ngeen mën a demee ki ñëw li ma tal yéen waa àll bi mooy ngeen am ay projet di am xëy di bay noor ak nawet am lu ngeen dundee yéen waa àll bi man loolu man loolu ma sama yitte li mooy pétrole beeg gaz bi ñu tourné ko ci réew mi wëndeel ko ba ndaw ñi ngeen mën cee am xëy li tal mooy école yi am njàng mu mucc ayib ñu fay professeurs yi fay yu baax njàngalekat yi fay leen ñu nekk ci opito yi médecins yi ñu fay leen payor yu baax ok fexe ba lépp baax man ci loolu lan ne football lan lay yokk ci am réew ana xaalis bi jógoon ci coupe d'Afrique bi xam ngeen ñaata la anamu yéen ñi may wax ñaata ngeen gagné ci coupe d'Afrique bi coupe bi ba mu weesoo coupe moom kenn du ko lekk coupe bokkul boolu ceeb bi ngay teg midi di ku nekk dugal sa loxoy de coupe bi kenn du ko teg boolu du boolu ceeb lan ngeen ci am yéen ndax di ngeen ci am dëkkuwaay ndax di ngeen ci am kër ndax di ngeen cee am pantere ndax di ngeen cee am ordonnance bi ngeen faj ndax ngeen cee am saaku ceeb lan ngeen am ci coupe bi yéen ñu doon dal lan ngeen ci am parce que vous êtes des êtres émotifs ay làppato ngeen yëg-yëg rek ci ngeen dox te ma bëgg ngeen jël seen yëg-yëg yi teg ko fële te jël seen xel yi xel jël seen xel yi di ci xel yi def ko xel mu nekk am koom seen xel yi na nekk xaalis ngeen jël seen xel yi di xalaat daas seen xel yi ba mu ñëw kenn bañ leen a manipuler Macky Sall manipulateur la toroxal leen ak def leen ay bàyyi ma ci la nekk du xëy mukk teg tànkam ci suuf am yéene ne dama am lu ma nar a dox yéene jéego bi ngir dimbali sénégalais yi xal leen ko xol bi moo bon yàllaa ko yàllaa ko xañ ak mbaax dafa judd ci ak mbon namp ci ak mbon di dee ci ak mbon Macky Sall yéenewul sénégalais yi benn ak soqaliku bëggul kenn am dara moom dong ma war a am ak ñooñam keneen ku àndul ak moom kaso la la yéene ak rey la kooku moo leen di woon na leen ka leen dañuy fete ay Coupe d'Afrique ngeen di lambar lambar topp ci ginnaawam man bokkuma ci man moom du ma kon gis na ni mu toroxalee opposition bi. ëllëg sa lu mu def woo joueurs yi woo ay ñoñam waa Benno Bokk Yaakaar la woo dugal leen ci palais bi ñuy fetu ànd ak joueurs yi ñu téye seen i coupe di jël seen i photo naan seen i champagne gi seen i whisky teg seen i seen i caga dugg tukkati yàmbaay yëpp ci pale bi ñu sàcc fa téléphone benn joueur ñu ne téléphone baa nga feeñee ji Colobane ah. ah léegi kon biir kon bi sàcckat yi palais bi ñoom ñooy receleurs ñooy sàcc téléphone joueur bi dem jaayee jëko ko la ban dañuy fen de téléphone bi ñoom ñoo jël téléphone bi ci pro ñoom ci biir Macky Sall ñoom ñoo sàcc téléphone joueur bi parce que joueur bi mooy capitaine u bi te bi ñu defee capitaine u bi da tax ñu sàcc téléphone bi dañu koo soupçonné jàpp na dafa bokk patriote ci Pastef fi la bokk parce que chanson woon ca biir seen vestiaire ba ñu gagné bojo bojo yee sanction bobu dañ ko yag de gone yi di woyal Ousmane Sonko ba équipe bi gagné ñu gis mu jip ci biir vestiaire ñu japp ne comme moom mooy capitaine bi xëy moko moo ñepp top ko ñu japp ne xëy mom patriote la ci Sonko la bok ñu sakki téléphone pour man ko écouter vidéo téléphone bi yépp mu nekk scandale ñu ne téléphone bi ñoo foré ko foree Colobane dañuy fende ay sàcc lañu ñom ñepp ba ci biir palais bi dañuy sakki téléphone joueurs yi ana opposition bi benn opposition ko fo ñom ñoomu neen la Macky Sall ak añoo ñoom ñoo nekkoon ci palais bi ak joueurs ñom ñoy ñooy Ousmane Sonko néew fa woon Khalifa Sall nekku fa woon Barthélémy Dias nekku fa woon Déthié Fall opposition bi kenn demu fa ndax iñaane nañu biir pale bi ubbi ko dugal fa opposition bi ak ñoom ñëpp ñu ne senegal moo gagné Sénégal moo am ndam loolu la ñuy wax de ci kaw di la jéem a dóor marto naan oui da ngaa war a supporter ñun senegal ñoo gagné ah ban senegal Sénégal lappoto làppato ñaari senegal am senegal ñi ànd ak Macky Sall nga xam duñ dugg kaso Bougazeli Elimane Lam Moussa Fall général dinaa ci ñëw Dore dégg ngeen Ousmane Sonko démb li mu wax Antoine Diome ak jabaram Dior Diagne lay wax yàgg naa leen wax Dior Diagne ku ma leen tuddal ngeen jàpp ne damay waxam damay sànni lu ma nit man oo ma jot di tudd kenn oo ma jot di yàq samay wax oo ma temps lépp lu ma ubbi sama gémmiñ gi génn ko ci sama gémmiñ gi ngeen dégg ko rek teg leen ci baaraam te topp ko man du ma waxantu du ma oo ma jot waxantu ku ma la tuddal oo ma coxor oo ma iñaan aw ma envie amul kenn ku ma ñee envie wu ma kenn toppatoo ma lu mu am lu mu amul Sénégal moo ma ñor képp ku may tudd ki li may xeex bu may tudd rek parce que yaa ngi yàqal Sénégal loo xam ne bu ko nit ñi xamul musiba am Moussa Moussa Fall Dore Gueye ñoom ñoo fa nekkoon te Antoine Diome ki ñoom Diodiane ki Marème ñoo nekkoon ci palais bi ak seen i ñoon ñoom keft ñoom ñoo jël joueurs yi ñu ne Sénégal ko moom coupe bi ñu ne Sénégal ko gagné ñu aaki moo loolu dugg ci palais bi palais bi nga xam ne ñun Sénégal yëpp ñoo ko moom Macky Sall tëju fa ak ñi ànd ak moom ki Sénégalais yi mu dugal leen fa ñi koy xeex te ànduñu ak moom ci politique am mu leen bokk bokku leen ci pale bi dàq leen ci biti benn opposition dugul ci biir palais bi waa naka ngeen mën a gëmee ne kii benn bis ci ginnaaw moom moo bëggoon Ousmane Sonko ñëw pour ñu accueillir journée naka ngeen mën a gëmee ne Macky Sall mi li muy wax dëgg ci moom naka nga mën a yowee démb nga ne nañ ñu ànd ñun ñëpp àndandoo ndax Sénégal moo am ndam nga woo opposition bi yëpp démb tey nga xëy ba jour yi ñëwee nga dugal leen ci pale bi woo say ñooñ yow ñu ànd ak yow képp nga dugal ci pale bi pale bi xanaa moom APR la pale bi xanaa pale xanaa pale benn boo yaakaar la xanaa du pale bi Léopold Sédar Senghor nekkoon xanaa du pale bi Abdou Diouf newoon xanaa du pale bi Abdoulaye Wade nekkoon Macky Sall moom ñëw jël pale boobu na léegi pale bi moom ak ñi ànd ak moom ñoo ko moom keroog bi ñu taxawee ñu ne Covid dafa am daf ne guerre dañuy guerre contre le Covid Ousmane Sonko wax na ko démb nu mu def keroog woowul ñëpp Ousmane Sonko demul ci palais bi ñoom ñëpp Khalifa Sall ku nekk dem ci palais bi mu ne dañuy dagale 1000 milliards pour xeex Covid bi ana 1000 milliards ya dama leen di laaj ana 1000 milliards yi Macky Sall waxoon ci xeex mbas mi xam ngeen fu mu ne ana mu yéen Sénégalais la laaj ana 1000 milliards tey joueurs yi ñëw indi ab coupe mu dugal leen ci palais bi ak i ñoñam ñuy fetu yéen opposition bi yéen topp leen na bokku leen ci Sénégalais yi yéen Sénégal man Sénégal man sama Sénégal man Macky Sall ñi ànd ak man Sénégal googoo ma yitteel ku man ci kaso bi laa lay def bokkoo ci li gii laa man damaa am ñaari Sénégal Sénégal gi nga xam ne kujje la ñi àndul ak man ñooñu dama leen rey ak sosol ak tuumaal ay viol ak sàkku jigéen ki siif ak dugal gi xaalis Khalifa Sall tëj ci googu du sama Sénégal Sénégal gi ma àndal mooy Sénégalu Bougazelli mi doon sàcc di def faux billet ñu dugal ko ci kaso ma ne ko dama ñibbi sa kër gi ma àndal mooy Alioune Sall sama rakk ji ma jox pétrole bi mu jaay ko ñu lekk ci ay milliards maag moom ak Aliou Aliou Ngouille Ndiaye mu toog ca këram dara fekk ko ci gi ma àndal mooy une tonne cocaïne bi jóge woon Guinée Bissau fan yële bi douanier ne moo saisiroon une tonne bi dañ koo affecté dañ a mucc ayib jàpp une tonne quelque ci ay bateau ñu jël cocaïne ba génne ko trafiqué ko def ko ci ay get privé yoo xam ne aéroport Dakar lay génne gis nga aéroport Yoff bi lébu yu xëccoo Macky da koo xaaj ñaar benn bi mooy yor suuf di ko dagg la ko des mu bàyyi ko fa benn pisi bi pour ay jet privé ñoo fay naawee di dem Abuja di fa trafiqué di fa yóbbu cocaïne bi nga xam ne Guinée Bissau Amérique du Sud lay jógee wàcc Guinée Bissau ñu dugal ko Sénégal mu mu mu décollé Sénégal dem Abuja Abuja fa lañ koy tasee dugal ko ci àdduna bi yëpp trafic boobu Macky Sall moo nekk taw moom ak Antoine Diome ak Moussa Fall ak ku ñuy wax colonel colonel colonel nu mu tudd sax colonel bi jàkk am na ñu ngeen ci nga na ci kaso bi la ñu waroon nekk ñi ngeen jàpp ci cocaïne boobu ci kaso bi la ñu waroon tëdd am na ci ñaar wala kenn ko xam ne ña ngi ko utal suite lañ ko jox ca Radisson Blu Radisson Blu lañ ko utal suite boole ko ñaari bip ay élément bip ñu di ko garder ci ay 4 x bu ñuul am naa photo yeeg am naa lépp

lii mooy sama problème ak yéen waxaat naa leen dinañ cocaïne bi ñu jàppoon ci port bi une tonne cocaïne kilo cocaïne bi kilo cocaïne kilo bi ñu ngi koy jaayee trente quarante mille quarante mille euros vingt cinq millions le kilo cocaïne bi jar benn kilo bi cocaïne vingt cinq millions kilo bi ñu jàpp ci une tonne mille kilos. def leen le calcul ngeen xam ñaata milliards la ana cocaïne ba na Macky Sall ak Moussa Fall ak Dior Diagne Antoine Diome ak colonel Diack. wax leen ñu cocaïne boobu ñu jàppoon ci port bi ànd mu colonel douane bi nga xam ne moo arpagé bato bi ba jàpp ko dañ koo affecté Macky da koo dàq lu tax mu dàq ko lu tax mu jëlee ko fa enquête bi nga xam ne moom lañ def ci Adji saar mbuxum gi ci nekk complot bi yëpp ndekete Moussa faal moo nekk ci ginnaaw waxoon naa leen ko fi ci live Mamour Diallo ak Moussa Fall ki Dior Diagne ñoo nekk ci ginnaaw di ko piloté enquête interne bi nga xam ne def nañ ko ci biir gendarmerie ba wane ne Moussa Fall gendarmerie ñoo nekk ci ginnaaw enquête boobu Ousmane Sonko wax na leen ko démb moo tax ñu dàq le général Tine bi nga xam ne moo fi nekkoon à 3 mois de sa retraite ou 4 la Macky Sall taxaw ca Matam dàq ko dàq la gendarmerie xëy rek dàq ko ca Matam di def tournée fa nga defee tournée boo ko loolu rek moo njëkk rek humiliation c' est c'est c'est un acte sans précédent pour xamal leen ni ñii duñu ay républicain ay narcotrafiquant lañu c' est des voyous des bandits nga ne yaa jiite am réew lan moo war a xew sa diggante le général de la gendarmerie nga xam ne c'est un corps d'élite de nos forces de défense et de sécurité nga dem ne da ngay tourner politique ca Matam dem ca Matam fa nga jëlee décret bi ko wàcc à trois ou quatre mois de sa retraite amul fenn fu ñu ko defee ci àdduna bi c'est une humiliation de tout un corps d'élite qu'on appelle la gendarmerie nga jël seen général tin toroxal ko pour lan parce que enquête yi ñu def ci complot Adji Sarr bi dafa wane ne lii c'est un complot et c'est extrêmement grave et que Moussa Fall bi nga xam ne manipuler celui c'est lui qui est au cœur de ça de ce scandale de ce complot il fallait que nous le général Tine pour dire Moussa Fall bi nga xam ne moo ci complot bi jox ko gendarmerie comme ça mu mën a de piste yi a effacer preuve le ba tuuma gi du agsi ci Macky Sall moo nommé le Moussa Fall la def général de corps ba pare jox ko mu le général de la gendarmerie le haut commandant de la gendarmerie et le directeur de la justice militaire Macky Sall moo ko nommé Moussa Fall barki démb ngeen na Macky Sall ku baax la ku jub la bu juboon la enquête ba wane loolu lay topp bu juboon du dugg ci ay complot bu juboon du dàq tin dafa teg Moussa Fall dallu tin moo gën téeméeri Moussa Fall Macky Sall moom ngeen bàyyi ko muy xëy ak di def di napp di di di tappaleeg naan damay dajale xale yeeg damay wax ak yéeg damay dem tourné damay inauguré kii damay lancé deuxième phase ak yu kenn xamul tapp Macky Sall moomu soo moom xam na ko moom kenn du ko jàngal Macky Sall kenn du ko dugal na ko senegal yëpp mere Macky Sall du ko woo ba mu wuyu ko sequl ak Macky Sall dara loolu fu mu ko fekk dóor ko dóor ko manjaari comme ni mu koy waxee fu ko fu mu fekk Macky Sall bulon la koy dóor ndax xam na koy Macky Sall yéen koy fàttaliku taxaw na démb nee na maa sauvé Macky Sall ma ne ko yaa ko sauvé dëgg la xawma loolu ku ko xamul waaye man xam naa ko keroog bañ la génnee nga ñibbi sa kër taxaw def sa première déclaration na bu kenn dem ci pale bi keroog damaa live dal ci sa kaw yow Ousmane Sonko. ne la nag ñun bu ñuy xeex xeexuñu la Ousmane pour nga libere wu de li ñuy xeex moo raw sa libération yow victime nga ci xeex bi da ngaa ànd ak ñun di xeex. ci xeex boobu ñu jàppale dugal ci kaso bi pendant quelques jours nit ñëpp génn na nañ la libéré d' accord dañ doon xeex pour nga libre waaye taxul woon lool loolu rek taxul man. pour nga libre taxul won ñu don ñu xex man bëgguma won sa nga genn kaso Ousmane Sonko ci deug deug wax na ko ci live jamono bobu bëgguma woon nga genn kaso man dama bëggoon ñu téwaat la ñetti fan wala ñenti fan ndax buñ la teewaatoon ñenti fan bo bo defaatoon ñenti fan ci kasso bi rek Macky Sall abal ñu man loolu mo nekkoon sama xex parce que man dama xam Macky Sall la ma doon bañ tay mo ngi dal mo ta bi nga genné nañu arrêté xex bi yépp waaf ma mere la lool dal ci sa kaw ne la ñun bañuy xex xex ñu pour nga genn kaso dem tok ci sa digg ñaari jeeg ñun say jeeg taxul ñuy xex toog nga sa kër génn nañ la léegi na fi xeex bi yem taxoo ñuy xeex donte ci nga bokk mais li ñuy xeex dafa raw Ousmane Sonko ñun ak mbon la ñuy jëlee ci réew mi Macky Sall la ñuy xeex pour mu jóge fi kon Ousmane Sonko doo génn sa kër dem toog sa kër rek ñun ba noppi woo ñu ne na fi xeex bi yem keroog ba nga waxee na fi xeex bi yem ci la xeex bi yem mu metti ma lool ma ne woon kii dañ ko war a génn ci pale bi te loolu lañ décidé woon vendredi la xaw ma un jeudi c'était décidé que dimanche du duñu fa àgg te Macky Sall génnul pale palais bi c'était déjà planifié loolu loolu moom lu ñu lu ñu réglé woon ba mu dee te xamoon nañ ni ñu koy defee te moom xam na ko moom Ousmane Sonko nga génn sauvé Macky Sall moom mu metti ma lool ca booba jamono dama live su fekkee ñi may suivre ñi ngi may suivre war nañoo fàttali ko live boobu ma defoon dal ci kaw Ousmane Sonko pour xamal leen ne li ñuy xeex moo gën a fort Ousmane Sonko jamono boobu Ousmane Sonko di wax naan nañu teg gànnaay yi buñ ko génn ci palais bi ndeke boobu Samba Abidjan moom Samba Abidjan ndeke boobu teg na avion bi moom mi ngi waaj moom ñu ne ko foo bëgg ñu yóbbu la fotuba mu leen yóbbu leen ma Abidjan ñu ne ko fan ci Abidjan mu ne am na kër goo xam ne ma nga Assini Assini ca sud sud Abidjan la a quelques à deux cent kilomètres de Abidjan au sud-est de Abidjan ci ci ci ci plage Abidjan bi fa la tabax ab château la fa am Macky Sall château ndeke foofu la bëggoon ñu yóbbu ko fa Assini fa am ngan di château ndekete avion bi ndekete keroog bu Ousmane Sonko bu noppi woon ñaari fan ñun bu ñu duggee ci palais bi duñ ko fa fekk ndeke booba génn ci tunnel yi ba jël ab ñu dugg ko ci tubaab bi def ko ci hélicoptère yóbbu ko Assini ca këram ga ca Assini ca ca Côte d'Ivoire ca ndekete ndekete foofu la doon dem Samba Abidjan mu ne ko waaw Sonko yaa ngi tooñ boo ñu bàyyi woon tey jii kon tey tegal nañ ko Samba Abidjan bu yàgg Samba Abidjan Samba Kumba Ndiaye waaw moo tax tey mu nekk fi di wax ak lappi-lappi ak tëb ak dal waaye bo nopi won tay la tax ka def ko xamna ko parce que bobu ay xaritu serignam ñoo jog ay xaritu marabuam xaritu marabu yi ñoo ko ñoo ñoo so loolu wo Ousmane Sonko wax ak mom Ousmane Sonko sañu leen a bañal motax bu ngeen déggé ma Ousmane Sonko muntaha Mbacké di wax da ngeen di xamné ne Mbacké mo jaar fofé ci suuf ñun bañuy xex muntaha mo moo convaincre Sonko Sonko mënu ko bañal dara mu nangul muntaha Mbacké ñaanam googa mu ñaan ne ko nañu tek lepp ci suuf ta ngeen wax ma seeni bëgg-bëgg na ci dox Ousmane Sonko nangul Mountakha Mbacké loolu waa M2D ñoom ñëpp ñu nangu ko sonkoo Sonko génn def déclaration déclaration boobee moo sauvé Macky Sall wax Ousmane Sonko waxantuwul de wallahi al azim Macky dafa daw ci ta Mountakha Mbacké yónni fa Aly Ngouille Ndiaye Mountakha Mbacké intervenir donte dafa lankoon ci ak njëlbeen waaye ba bu waxee ak Ousmane Sonko la Ousmane Sonko teg lépp ci suuf ndax cër bu mu jox Serigne Mountakha Mbacké boobu ñun ñoo ngi xeex ñun raag rek parce que Macky xeex la xam manjaari dong la raag amul ay werante boobu ñun pare nañu pour na fi jóge jamono boobee sëñ Muntaxa mi ngi diisoo ak Ousmane Sonko yónni ay ndaw Ousmane Sonko xam ne xamul lu muy def sëñ Muntaxa mu ne teg leen xeex bi ci suuf waaye bu dul moom loolu tey kenn waxatu ko ñu jël suñu ay doléance fukki doléance jox ko sëñ Muntaxa bàyyi xeex bi sànq ci suba doléance yi ana mu ana doléance yi dama fukki poñ yi ñu tënkoon teg ko ci loxo sëñ Muntaxa fan la mujj ana mu Macky ngay def lu ko neex ma ngay layam layam ma ngay dem ak dikk Macky la ñu yaakaaroon ne bàyyi na ko dana soppiku dana am yërmande ci ndaw ñi dana leen taxaw dana fexe ba jubbanti ay rëq-rëqam tey la waa la gën a aay tey la Macky Sall yées tey la gën a yées bu ñu ko jekkoo mu daw ci sëñ mun sëñ xaar sauvé ko woo Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne teggi leen seen tànk ñu teggi bu demee ba ximali ko ba xaggali ko waat taxawaat commencé fàqaat yaram dañu duma waaye billahi billahi boo xamoon ne la yot bi yoon baax du ma ci boole wax du ci boole wax parce que yenn yébaate yébaate la amul négocier wuñu waxtaanuñu tooguñoo kenn lu ñu doon maye maye nañ ko ba noppi bi yoon bu ñu jógaatee kenn mënuñoo téye kenn kenn kenn kenn kenn kenn na leer bu fi kenn ne waxuñu woon bu fi kenn ne kenn dégguñu sëriñ sek ada jeeg ñëpp laay waxal lu ñu doon maye maye nañ ko du ñu maye ñaari yoon mënta ne parce que ki tax ngeen ñuy ñaan daf ko yarul Macky Sall du nit il faut que mu leer ku dugg na partagé partagé leen lii pour mu yaatu ma bëgg xel yi tàkk nit ñi yeewu xam nañuy xeex lan la tàmbali gu waxtaan wi de partager leen ko parce que man uma jotu naan partager partager donc man je suis concentré ci li may wax donc am na loo xam ne dimbali leen ma ci kon ngeen gis na jamono boobu ñuy xeex ma mer lool ba dal ci kaw Sonko ne ko waruñu woon a arrêté na nañu bàyyi parce que jamono dama ne mais pourquoi mu ñooy arrêté moom mi ngi ci kaso bi nit ñaa dee di xeex pour lan nañu Macky Sall may lenn li Ousmane Sonko la ko def mu naqariñu loolu moo déclenché xeex bi li tax ñuy xeex Ousmane sonkoo moo tax ndax moom li ñu ko def moo rëy rëy goo xam ne gone yi ci la ñu jógee jóg gi ñu nag dañoo bëgg a faj loolu waaye bëgg a fajaale lu baree bare lu fi dox loo xam ne loolu dañ ko yàgg muñ waaye déclenchement bi nga xam ne moo am ci fipp gi ci mi ñu téye nag mooy toq ndox bi nga xam ne nag moom bi ñu mel ne toq ci bagaan ci paan bi nag paan bi dafa fees bay wal Ousmane Sonko mooy toq ndox bi nga xam ne moo tax ndox mi débordé ci ci paan bi fekk paan bi duy nañ ko duyee duyee duy ñu ndaw ñu duy nañu ba fi fukki at ñuy duy rek ñuy duy rek di ko duy nag ba paan bi fees Macky Sall dolli ci kopp ndoxu Ousmane Sonko kopp ndoxu Ousmane Sonko boobu nag moo tax paan ba paan ba débordé turu gone yi génn kon ñuy xeex pour Ousmane Sonko ñu bàyyi ko ndax loolu moo yëkkati woon gone yi principalement waaye gone yi dañoo amoon saafara lu ñu bëggoon a saafara lu baree baree bare loolu lépp naxasaay mën nañu arrêté mën na ko déet lu tax ñu arrêté dañ ci dañ koy génne ci palais bi ci palais bi lañ jëm loolu lañ décidé woon dañ koy génne ci palais bi parna na ci gendarmerie seen yoon nekkatu ci mom rek fa dess takku na ay bagagem pour ñu yobbu ko asini Côte d'Ivoire ci këram gam fam am Ousmane Sonko ya yàlla ah ma <coughs> ko Sonko yak nga lu bari way kat ba won senegal Sénégal mu ko Sénégal xelam demon na bay ne xaw nan no xaw ma nu ko wéykat ba way waaye lay Sonko yak nga lu bari way dañ ko ki ki do doomi haram la Macky Sall mi mo bon dañ ko rëccu wallahi dañ ko dañu xamne ki ñuko ko ba mu ximali ko ba jogat tey anamu mi ngi mel ni du moom Macky Sall ma doon layam layam naan nañ ma jaarale fii ak génne leen ma taata mu rëy tey xool ko mi ngi taxaw dañuy fontoo dañuy fontoo waaye baax na dégg nañ nag ci sa wax yow Ousmane Sonko président démb nga ñuy waajalaat loolu yéen déggu leen ko waaye man maa leen koy wax discours bi mu def démb discours la boo xam ne mi ngi ñuy waajalaat waajal leen seen bopp jog leen préparé wu leen taxaw leen tem nañu taxawee woon mois de mars bi nañu taxawé fuk yu nah, ko raw tay waja suñu bop ndax kii nekk ci kaw bopp réew mi nii kii muy Macky Sall Samba Abidjan mi demul fenn troisième mandat la bëgg a forcer tenyak tenyak. ma ngay tëñëx tëñëxi fu ne mu dugg fa inauguré fii lancé fii wala dëkk beeg yëpp wëndeelu gi yëpp troisième mandat bi moo nekk ci xel mi te dinaa leen wax lan moo mu bëgg troisième mandat bi jóg leen paaka ak jaasi taxaw kel su ngeen xëyee su guddee ngeen xooj ko ci mu fanan yatwi su ngeen xëyee bu jant bi génnee ngeen teg ko ci naaju bàyyi ko mu wow bu guddeetee ngeen xooj ko ci ndox mi mu fanaan bu ngeen xëyatee weer ko ci naaju yetu kel bi nay fanaan entre ndox mi su guddee su bëccëgee ci naaj wi day tax mu gën a dëgër xooj ci ndox bu guddi gi bu naaj wi génnee nga weer ko ci naaj wi ba mu wow bu guddee nga xooj ko bu naaj wi génnee nga bés bu ne yet wi kel bi na dëgër bu mu damm li ma leen caaxaanu ma nag tàmm ngeen lu ma wax ngeen reeka xàqtaay oo ma gëtu caaxaan de li ma leen di wax lu leer naññ naññ naññ naññ naññ la fàq leen yetu kel yi bu guddee ngeen xooj ko ci ndox bu jant bi fenkee ngeen weer ko ci naaj bi di ko def noonu bés bu ne ba keroog xeex bi di déclenché jóg leen ngeen taxaw li ma leen di wax waxantuuma de Macky Sall du nit yéenewul Sénégalais yi lu jub yéenewul Sénégalais yi ak suqaliku xol bee bon moom ak yi frèram ñoom ñëpp dañoo judd ci ak mbon juddu ci iñaan yéene wuñ sénégalais yi dara bëgguñu sénégalais yi am bëgguñu senegale yi faju bëgguñu dara lépp lu baax seen bopp lañ ko yéene bu ñu sañoon sénégalais yëpp ci ndóol la ñuy dëkk guddeeg bëccëg ñoom ñu tiim leen di leen compal di leen sarax seen xol yee baaxul dañoo soxor dañoo juddu ci ak coxor ak bon ak iñaan kii mooy famille Sall Faye Sall loolu nag nit su ko xamee da xam sa bopp taxaw dëgër taxaw tem bàyyi buñ ñu naan réew mi jàmm la bëgg fitna baaxu képp ku leen di wax réew mi jàmm la bëgg fitna ab tappalekat la c'est un défaillant képp ku la wax loolu utal buum takk ko bam mu ne code nga ubbi sa kaaf dugal ko fi tëj ko nous avons besoin de patriotes de combattants Emmanuel Macron lan la wax démb 27 présidents yi nekk Union européenne la boole indi leen France yóbbu leen ci château bi gën a rëy ci France muy château de Versailles tëj leen fa ñuy waxtaan union européenne yépp président ñu daje Emmanuel Macron ni leen dañu wara taxaw ñun ñëpp and bokk nday bokk baye pour am suñu indépendance moom suñu bopp li xew Russie wala na ñun ba légui amuñu indépendance Russie taxaw na day xex ak Ukraine dund gi na ra cher essence bi cher lépp na ra cher Russie moo ñuy jox gaz moo ñuy jox car euh, essence ci lu bari ba ñun suñu àndandoo bi union européenne gi nar tas France na nañu dal ci kaw Russie Allemagne ne du def ndax damaa am lu ma 3000 entreprises yoo xam ak Russie ba pare man sama gaz bi nga xam ne moom toggee Allemagne di ko ci kër yi sedd bi lu bari Russie lay jógee mënu ma ko dagg noonu day su ma ko defee kon man président bi may folli ndax peuple bi duñu mën nangu kon man il faut ma maslaa naxante France bëgg lii Allemagne bëgg lee Pologne jaar fii Roumanie jaar fee déggoowuñu xeexu muy tas ne leen nag lii xew Ukraine te Poutine def ko li muy njëkk a firndeel mooy ñun ba léegi fooruñu ba léegi amuñu moomeelu suñu bopp amuñu moomuñu suñu bopp ñun Europe dañoo faible ba léegi américains yi ñoo ñuy garder ci OTAN waaye koom-koom beek dund beeg gaz beeg pétrole beek bele bi jógee Russie dafay wane ne ñun ba léegi mën ñu suñu bopp kon il faut que ñu ay pexe pour moom suñu bopp am suñu souveraineté mu ne leen nag moom sa bopp kooku dafa am njëg njëg gi mooy lan mun a bakkan la bakkan Emmanuel eh, Macron wax de nee na bu ñu pareewul pour xeex tayee suñu bakkan yi ñun Europe duñu moom suñu bopp ci Russie duñ ko moom ci Amérique il faut que ñu am défense am sécurité am dund am gaz am pétrole boo xam ne kenn duñu chantage démb la ko wax Emmanuel Macron ma ne ko waa yow Emmanuel Macron yow boo demee ba xalaat na yow France ak ñi bokk Union européenne da ngeen a war a moom seen bopp am seen indépendance waaye yéen ñi ko xalaat wax ngeen dëgg de d'accord ci li ngeen xalaat waaye ñun africains yi ko bëgg ñun ci yéen waaye waaye ngal yéen bu ngeen demee ba jàpp ne Poutine leen a noot ba ngeen bëgg moom seen bopp am souveraineté waa ñun ñi ngeen noot ñun yor suñu CFA yor suñu école yor suñu économie yor suñu entreprise yor suñu or yor suñu zircon yor suñu yor suñu yor suñu yor suñu suñu lépp mi ngi seen i loxo waaw ñun kon ñun ñun ñun fu ñu jëm est-ce que yéen a ngi dégg Emmanuel Macron lii mu wax maanaam moom la mu bëgg ñun moom lañu bëgg ñun dañu na ko France dégage dañoo bëgg moom suñu mënee bopp France CFA bi bëggatuñu ko lakk France wi mu ñuy imposer bëgguñu ko armée française bi mu dugal ci biir réew mi bëgguñu ko Mali na ñun dañoo bëgg moom suñu bopp ñun Mali mun leen yéen France de Emmanuel Macron bi wax lii moo wax lee de Mali na leen may leen ñun dañoo soxlaatuñu leen Mali ñoom ñu lànk ne duñu génn Mali Emmanuel Macron bi imposé France Mali moom mo bëgg Russie wàcc ko kañ ngeen nekk ay nit comprendre aduna bi ni mi rapport de force xeex rek a fi am ay tàllal sa loxo ma ñaan ak yàlla baax ki yambar la li ma leen di woo mooy entraîné wu ba taxaw lek ba taxaw entraîné wu ba taxaw jang armation fàq ay yet man je vous appelle à un combat patriotique je ne vous appelle pas à la mosquée pour prier Je bu des courses vous avez ay des ay la soxla la wax man wax day des dañuy ngi Emmanuel Macron ñoom qui. petit. ndax bu ñu Europe tas ndax Europe dañoo Beaucoup ay intérêt ay économie développement Les kenn ku intérêt wuñu ak russi waye France mom ni taxawé pour dag dag dag dag Allemagne mënuko romani mënuko mënu ko Pologne mënu ndax ñom dañoo am kom kom bo xamné ne bu russi génnee loxo musiba am wa ñun Sénégal ñu nekk e e Mali am nañu bëgg régler sen problème Emmanuel Macron dal ci ko Mali parce que Mali ànduñu ak mom ñu jaar ci souf ruux Macky Sall ki watara ki Samba Abidjan ñom ñëpp ñu dajaloo dem CEDEAO jël ay sanctions tek ko ci Mali Mali nga xamné moy premier partenaire commercial du Sénégal dans le monde entre jaay ak jënd Mali moy premier partenaire Sénégal li Mali duggal ci Sénégal ci walu budget droit douanier amul ben réew bu ko duggal Sénégal Mali. 25 de notre commerce extérieur c'est le Mali 25 pour cent Macky Sall nga arrêté ko ndax lan lu neex Emmanuel Macron Emmanuel Macron bi la duggal ci lolu mom man ngay négocier ak Union européenne Allemagne na man li nga bëgg yow France du ma ko def li nga bëgg mooy dagg sama relation yëpp ak Russie ndax Ukraine man Allemagne du ma def su ma defee sama réew tàkk ndax man gaz beeg pétrole bi ak blé beeg yu bëree bëri man foofu laa ko jëlee donte jubóowu maag Poutine waaye il faut que maslaa ak moom ndax sama ay intérêt économique du ma ko sànq yow Macky Sall nga jël sa 25 pour cent de l' sa 25 kii nit la yéen kii Macky ngeen ne nit la ngeen ne kii Sonko def ko war a respecté kii def Sonko dafa war a toog ak moom kii Sonko dafa war a am lu mu wax ak moom loolu bu ko defee ma bàyyi Sonko man wax day leer bu koy def ma di ko ba li may wax est na Emmanuel eh, Macron ngay daw fi mu toll nii ñoom ñëpp a jaaxle ndax lan Poutine léegi bu ko Mali jógee def làppato yi ne oui attention à la France la monnaie c'est sensible hein. attention hein. vous êtes des amateurs hein. oui oui attention une monnaie c'est c'est technique euh... c'est complexe là ces assujettis ñi nga xam ne ñoom da seen yuuri la France li nga xam nga colonisation bi ci gën a garaaw nag mooy colonisation psychologique colonisation mentale complexe parce que Django nga des diplômes ñeu taxaw nek cadre dans des grandes institutions tu parles français oui dem coup dugg ci avion sur costume cravate tu es bien tu es un grand cadre une voiture une maison tu voilà bu ah non attention il faut tout ça c'est complexe ces gens là on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de ces, gens là il faut les mettre à côté on n'a pas besoin de ça rien n'est compliqué ici en matière la politique monétaire il n'y a rien On a live live sur la monnaie je vous ferai un live sur la monnaie les mécanismes de gestion la monnaie comme outil

ki koy ki koy du xam xamul ki ki saa yoo toogeeg moom négocier wala ngay maslaxa ak moom mu mu jam la warkat la dalay war Macky du ku ñuy négocier du ku ñuy diisool du ku ñuy dialogueel dalay war képp ku mas a dialogueel war na la warkat bu mag la ki mu xam mooy ki koy tëgg mbéj tëll ki mu xam mooy ki koy ki koy fekk ci pale bi génne ko kooku la xam ko kooku la respecté kooku kooku dong lay déglu xeex rek xeex rek léegi moom ci li Ousmane Sonko wax démb bokk na ci fànn bii ma nekk point bi li mu bëgg a wax ndaw ñi na awma wéeruwaay dewuma ci ben président bu nek bitim seti wuma kenn ngir di ci wëru pour buñu dalé sama kaw ma am wëru waaye kuma japp jàppale déedéet seti wuma ben président xawma kenn yalla la xam ak sénégalais yeen ñi gannaaw yalla sama karange sama la bëgg mu soti mu ñaka soti sama falu président lip gannaaw yalla ci seen loxo sénégalais yeen la ko tek. ba ma ko seen loxo mois de mars genn ngeen wone ne kat sama karange yeen ko te na ngeen ko yore woon mois de mars bee weesu gëm naa ne tey jii bu loola naroon a amaat tamit noonu ngeen di génnaat te lu ko raw pour taxaw yor sama karange parce que jàpp ngeen ne ci li nekk dëgg la man da ne li mu nekk dëgg damaa gëm ne ci dëgg la nekk moo tax bu nekk woon ci dëgg du ko far ñu ëpp ci Sénégal yi nañu ko dëgg la ci dox moo tax ñu pare ñun pour joxe suñu bakkan ñun pare nañu pour dee ngir Ousmane Sonko loolu dafa war a leer il faut que Macky Sall xam loolu kenn mënuñoo xooxatal man kenn kenn mënu maa xoqatal fet gu ne jaar nañ ma fa xoqatal nañ ma lu jéem nañ lu ne il faut que ñoom ñooñu ñoom mafia bi le cartel la narcotrafiquant il faut que ñoo xam ne man sama bakkan bi dama ko joxe man ngir Sonko mën a falu dama ko joxe ba pare sama lépp lay joxe ngir Sonko falu da sama benn bakkan bi Sénégal la gën sama benn bakkan bi bu moo ko mën a joxe pour Sénégal soqali ko ba joxe benn bakkan képp pour Sénégal dem loolu loolu loolu dara ko sacrifier pour loola di tant que Macky Sall xamul ne nit ñi pare nañu pour dee ngir Sonko tant que Macky xamul loolu du bàyyi Sonko il faut que mu xam ne nit ñi pare nañu pour dee te bu du ñu dee de bu fukk ci ñun dee Macky dana dee ànd ñun fu fukk ci ñun dee wala téeméer duñu bàyyi Macky dana dee ànd ñun donte moom képp mooy dee téeméer ci ñun dee waa jar na ko bu téeméer ci ñun dee woon Macky Sall dee wala ñun jar na ko téeméer yooyu ay shahid la ñuy nekk daañu sauver lu mat ay millions sénégalais yoo xam ne ñoom deewuñu il faut que am ñu pare pour sacrifier wu pour que Macky Sall wàcc sénégalais yi soyons prêts au sacrifice parce que loolu la laaj ki ñu ko seqal du nit nawloowuñu faalewuñu respecté wuñu toppatoo wuñu liggéeyaluñu ci lu ñuy lor ak lu ñuy sànq guddeeg bëccëg ci lay dox ku mel ni dañoo war a jël suñu bakkan jóg taxaw xeex jihaad ak moom mu may ñu mu rey ñu wala ñu rey ko voilà comme du nit nag nit ku dul nit ñu jox ko lépp yi réew mi ku dul nit ñu jox ko armée bi police budget gendarmerie décret yi muy nommé di def lépp ñu jël suñu lépp jox ko te moom du nit kii dañoo war a jóg xeex ak moom nu mu gën a gaawee mu abal ñu amul layam layam waaw gis na ñu ab épingler youtube page bi may live ni muy facebook bi bala yag ma nga jëm ci youtube ba fa laa ko def li may wax ni bu len intéressé dem leen ngeen abonné wu ci page youtube bi jiji épingler fi youtube page activiste pas parce que facebook bi man dama koy génn dem ci youtube ba di fa laay fee ku ku ñu bëgg suivre da nga dem ci page ba nga abonné mi ngi ñu épingler ci suuf soit dit en passant dama koy wax rek jàll ci lien YouTube bi kon ñi naan dafa tàng Ousmane Sonko li Ousmane Sonko la mais Ousmane Sonko tàngul de maa ko gën a tàng fuuf ñun ñi topp ci ginnaawam ñoo ko gën a tàng bay bax Ousmane Sonko tàngul de Ousmane Sonko yii Ousmane Sonko tàngul opposant radical la amul lu muy maslaa amul lu muy may kenn wax na dëgg wax na dëgg ñu laaj ko ci li nga xam ne léegi moom la yore Casamance ga mu falo ci programme am na muy liggéey dégg ngeen ko lam ca wax ña ngay audité fekk na loo xam ne fa la ko fekk lam ca mën a jubbanti ma ngi koy jubbanti ndànk-ndànk doo ñëw rek def lépp daal di ñëw braqué Ousmane Sonko newul ne bu ñëwee day soppi lépp ci saase nit ñi dañ koo teg foo xam ne ak di ko waxal wax joo xam ne naan dafa bañ France ak Ousmane Sonko bañul benn France Ousmane Sonko bañul américain Ousmane Sonko bañul arab Ousmane Sonko bañul russe Ousmane Sonko bañul kenn xam ngeen Ousmane Sonko lum defa Ousmane Sonko dafa bëgg boppam bëgg sa bopp nag wul bañ ñeneen ñi lii kat lañ koy jéem a la diko ko jéem ba bu toge ak tubaab ñu ne système bi mais ne système bi tubaab la kan mooy ne système bi tubaab la oh, ken mo sa wax le système est blanc le système n'a pas de couleur le système a à la à la couleur de l'arc-en-ciel le système moins le système c'est pas x ou y le système c'est un tout et un rien à la fois Ousmane Sonko bu président fay un ak français di wax ak français France day liguey képp avec Sénégal pour une croissance ben suqaliku mutuel bo xamne ñun ñiko sekk kenn ku ki nek da ci gis akam lolu diina moko ñëk nangu yàlla mo ñëk nangu lolu kenn wurtu lek akku kenn man suma mané manee mënul nga man lu ma mënul te su ñaari manel yoy mënu ñoo ñak baña daje dañ koy bolé def ko ben manel waye ci kaw ben manel gogu kenn ko nek kep la nga indi duggal ko ci ben manel gogu lolu la cey balla da nga cey jot sa wàll lolu mom amul sénégalais amul tubab amul nar amul juif ñëpp ci yam koku mom Ousmane Sonko neewul bu mo fi gëna may gëna tubab yi ñun Sénégal waxul lolu daañu liggéey ak képp ku bëgg liggéey ak ñun waaye nag condition yi ñuy liggéeyee foofa la Ousmane Sonko ne daañu ko saytu ñun ba nga xam ne mm, pexe ye ak nañuy liggéeyee bu ñu ko saytoo teg ko ci comptable gi daañu gis ne lii kat moo gën ci Sénégal la fi amoon mooy bu fekkente ne njariñ dana ci am Ousmane Sonko dana fexe ba la ëpp ci njariñ la di dellu ci Sénégal bu fekkente ne ñun ak tubaab bi ñoo ko seq ci suñu ay mbal suñu pétrole suñu gaz suñu zircon suñu ore yëpp luy réew réew mi yàlla dënk su Sonko nee na Macky ko jox ko tubaab téeméer boo jël tubaab yi ñoom ñoom moom juróom-ñeen fukk ya ñun sénégalais yi fukk lañ ci am Ousmane Sonko nee na loolu du dëgg du yoon mënuñoo am gàncax ci réew mi am ay mball ci réew mi am ay richesse maanaam ay ay ay ay ay ay ay ay ay loo xam ne koom-koom la ci réew mi moo xam ci suuf si ci gàncax gi ci géej gi ak fu mu mënta jóge ci mball meeg pétrole beeg gaz bi yàlla jox ñu ko ñun sénégalais yi ñu moom ko ab tubaab jógee fa la ñëw ñu jox ko ca téeméer boo jël ca loole tubaab bi moom moom juróom-ñeent fukk yi fukk ba ke ñun senegal yi moom la ñu moom te ñun la ko yàlla jox ci suñu Ousmane Sonko nee na loolu dëgg du yoon bu ngeen ma falee la wax dama koy joyant jubbanti ba li ëpp ca loola dellu ci sénégalais yi la ca gën a néew dem ci tubaab bi ndegam ñu ne ñoom ñoo ko seq liggéey bi daañu fexe ba même bu ñu ko seqee ñoom ñu am lu ñu indi ci seen wàllu xam gi matériel ñun ñu moom ko ñu ànd ñoom di ko liggéey la cay ball lépp danaa fexe man Ousmane Sonko ba bu ñu ko xaajee lu mu néew néew néew ñu xaaj ko ci digg bi bu ñu ko mënta xaaj ci digg bi danaa fexe ba bu ñu ko xaajee juróom benn fukk ya wala juróom ñaar fukk ya day dugg ci ngeesu Sénégal la ko des muy fanweer ñoom ñu jël ko ñoom tubaab bi waaye musiba du waaye lii fi nekk dafi jóge tubaab bi juróom-ñeen fukk ñun fukk ci téeméer bi Ousmane Sonko nee na lii dama ko fi jële waaye lii la wax ñu ne ko ñu ne ko da ngaa tàngat da ngaa fit na ngay indeeg dagaa parce que dañ leen a nandal ci meewum meewum colonisation meewum làppato meewum jaam meewum cogg meewum ragal meewum eh, tubaab bi ay de surtout Hitler yi ay waay surtout de Gaulle yi moytu leen leen de yi ngay changé ci Casamance tur yi bu laal de a eh, ñoom Javel yi xool li dangay ngay seet li da ngay seet mu falu jël ay acte symbolique turu tubaab ya nekkoon ci ca yoonu Casamance mu dindi turu tubaab yëpp def fa ay turu turu africain ki ay africain wax na dëgg doo dox fenn France fii ba gis fi ay turu Hitler wala ay turu Göring wala ay turu Vichy Vichy bi nga xam ne français la tubaab Vichy non pas Vichy Pétain le général Pétain Pétain nga xam na jamono bi Allemagne ji occupé France général Pétain moo yoroon armée française waaye lank ne du xeex ngir France moom boppam ànd ak noonu France bi noonu bi moom France comme ni Macky Sall tey lankee du xeex France ànd ak France noonu Macky Sall nekkee noonu Sénégal nekk traître nekk lâche nekk ku war Sénégal ci ànd ak tubaab bi bañ a xeexal Sénégal général Pétain bi nga xam ne français la yor armée française ci booba jamono bi Allemagne di dugg France di ko nangu général Pétain moo waroon a xeex ne France du ngeen daanu Allemagne du ngeen ñu noot dafa lank daal di ànd ak Allemagne bi ko noot lor France général Pétain boobu kenn du ko fi tudde benn rue amul wenn yoon France booy dox foo gis ñu bind la général Pétain amul dañoo génn turam ci yoon yëpp amul lenn benn symbole boo xam ne da dox France fenn ba fekk fa général Pétain kenn sañu ko te ci ñoom la bokk français de waaye da leen a war waxantuma la nag français bu jógee France ñëw Afrique Sénégal fekk suñu ay maam takk leen ay buum fa force yóbbu leen guerre seenum payoor bu ñu fayee tubaab téeméer ñoom ñu ne fukk lañ leen di fay fukk yooyu fay ñu leen ko ñu ñëw ba Ndakaaru ñu wa génn di ñaxtu nañ ñu jox suñu fukk yi ngeen ñoo leen fay jox leen ñu téeméer waaye fukk yi jox leen ñu ko ñu génn boom leen ñoom ñoom ñëpp ba ñu dee te ñenn boom ñoom la seen maam yi yor seeni tur ci suñu lii Casamance ak Ndakaaru fépp tubaab kenn ñoom ñaawtee fi ci réew mi yëpp ñoo ko def am làpp doomi làpp te jóg naan loolu amul solo loolu c'est quoi di ko di ko sikkal di ko ŋàññ di ko ŋàññ est-ce que Sénégal ñenn Sénégal yi Ousmane Sonko est-ce ay nit est-ce que duñu yoo xam ne dañoo namp ci meew mbaam est-ce que ñoom ay sénégalais lañ am na ñoo xam seen taxawaay dama naan ñii duñu ay sénégalais dañu ñoo infiltré ñii bis bu ñu jëlee réew mi il faut que ñu enquête leen ñoom ñëpp xool ñu seen i maam fan lañ jógee parce que bu nekk Sénégal nekk ab sénégalais ci génération sa baay ak sa ndey ci réew yàlla yéen nga xam ne ay ay am na ñoo xam ne seen waajur ay làppato ñoom doomi làppato la doog nañu jur kese ci réew mi ñu yar la ci bëgg réew mi nga xam cosaan réew mi xam ne amoo lu dul réew mi dëgg ci xol réew mi nekk ab sénégalais pur Ousmane Sonko di yëg discours boo xam ne tubaab bi nga xam ne du sénégalais sax d'accord na ci discours Ousmane Sonko bi ndax c'est un discours patriotique la boo xam ne day delloo buum ca booy booy ga la boo xam ne day jox sénégalais seen gëdd tubaab bi ànd ceeg moom yow sénégalais bi yow nga incarné Ousmane Sonko di wax dëgg foo sa gox yow bëggoo sa bopp yow da ngay xaru yow doo Sénégal ci lan par parloo képp Macky Sall képp laa àndal de jaral la lii njëriñu Sénégal Ousmane Sonko di ko wax nga lànk ne doo ci ànd yow tu es un traître na tubaab bi général Pétain sous l'occupation allemande yow nañ ko jugé woon noonu lañ la war a jugé tu es un ennemi la République qui ont défaillant amul parce que mënoo indi tu ne peux pas parvenir que l'Ousmane Ousmane Sonko di wax ci walu mom sa tu ci walu bëgg sa tu ci walu dolel sa tu ci walu mom sa Ousmane Sonko discours mom sa souveraineté bi nga mom sa le gi nga mom lay yow nga ne ci kon yow da yow pour yow joxe sa bop mom sa bop fi wala ñoom la rek am benn ulmi la gën a nga ne àndoo ci kon yow da ngay ànd ci continue ñu doo boo Sénégal bu nga bu bon nga amul dem dikk dégg nga Allô Ça coupe. Allô, allô, allô. Il faut aimer. Mettez des cœurs peut-être, je ne sais pas. Allô Est-ce que y a des dégâts Allô, là? Yéen Allô. allo def leen allo y a une allo est-ce que y a ngi may dégg Allô, allô. est-ce que le son est bon yéen a ngi Allô. ok il faut aimer donc aimer aimer le live et le partager Moi je sais pas ngeen gis ne kon ngeen gis ne naka nga mën a ci réew mi ci réew Ousmane Sonko ne moom bop. bopp làkk bi dañ ñu ko jox xaalis bi dañ ñu ko jox njàng mi ñoom ñoo

woote nekk ci réew mi waraloo am ay laaj lañu ay outré ñooñu il faut les il faut xame leen les ennemis ñaar ngir noonu la

de la diaspora ñu fexe ba mobiliser lépp par la diaspora que des localités bu ñu ay tubaab ni benn avril ñoom yóbbu benn Ziguinchor waa ñaan ay ay

Love general شروان صفر صفر